dafa question bi nga xamante ni quand même depuis démb ay naataango journaliste ñu may woo di ma ci laaj ay euh, di ma ci laaj ba ci tey jii ñu ci bëri woo nañ ma ma ne woon leen ñu xaar ba ma ñëw fii ma daal di jël juste benn moment pour indi ay information yi war ci loolu ndax quand boo déggee ni Pape saajo kamara ñu ngi ko boom mu jël bal fële ca Diaobé nga dégg suñuy frères yi nga xamante ni ñu ngi leen boom ca euh, nu mu tuddati Bignona ak ñeneen yi nga xamante ni fii ci Dakar la ak feneen ci Sénégal ak ñenn ñu am yenn gaañu gaañu yu metti yi nga xamante ni dina bàyyi ay màndarga ci ñoom ba abadan boo gisee yooyu ñu lay wax ay waxu caat da nga koy tegee na le doo ci bëgg wax parce que yii moo man yooyu laa doon gérer voilà mais juste pour l'information l'important que ma wax ni caat euh, démb mook ay téeméeri téeméeri jeunes sénégalais yi nga xamante ni ñu ngi doon dox pacifiquement pour jëm ca place Soweto euh, ci manifestation bi ñu fa woote euh, ci laa am ay éléments wu euh, on ne sait même pas xamuñu sax ndax ay nervi la ou bien ay gendarme la wala lan la parce que amut lenn luy mandargaal ni ay forces de sécurité lañu que ce soit police ou gendarmerie on sait juste que tenue civile la ñu soloon ñu ngi woon ci oto bu ñuul kukk ak vitre teintée yu ñuul kukk yi nga xamante ni kenn mënul kenn kenn mënu leen kenn mënu leen identifier ci booru kër sëñ bi ci euh, Blaise Diagne bi la ñu daal di attaqué leen ñu bàyyi ñëpp nag seppi ci caat quatre personnes la ñu woon ñu jàpp ko mu ngi def sax signe bi ñu koy jàpp fekkoon na ak yeneen jeunes yi ñu ngi def euh, signe non violence su mouvement Y bi nga xamante ni moom la ñu ràññee mais dañ ko jàpp sot sotoo ko dóor ko dóor yu metti ñu yóbbu ko ci oto bi di jël crossu fetal yi di ko ko dóor ci kanam di ko ko dóor fépp waaw gaañ nañ ko bu baax mais il peut pas entamer détermination pour le peuple ndax biñ ko kiiwee sax buggul bi mu ne ñu non non non voilà peuple bi moo jóg il faut que résistance mu continuer man maa ngi ci jàmm ak salaam donc tey médecin gis na ko constaté na li am def na certificat médical mais le combat continue encore une fois ñun li ñu préoccupé mooy jeunesse bi nga xamante ni jóg na pour résister ah ñu koy boom di ko dóor di ko gaañ mu nekk fépp ci Sénégal ñun tey ci loolu lañu nekk di ci woy ak ñoom ci lëndi bi ñu jëm altine talaata ak àllarba bi ñu jëm ñu ngi woote fépp ci Sénégal fépp ci Sénégal dakaar ak fépp ci région yi ak diaspora bi nañu génnaat manifester incha allah pour que suñu démocratie ñu mun ko aar et que suñu dëkk bii mu bëgg euh, taal suñu Sénégal bii nga xamante ni moom la bëgg anéantir que ñu arrêté bëgg-bëgg euh, boobu mu am euh, et que jàmm mën a dellu ci réew mi jërë